sëriñ bi nee na mi ngi nuyoo bu baax a baax a baax. nee na ji jiital nag cant gu rëy. nee ci ñi mu bokkal liggéey bii. li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 waaye moom day boolewul dara ak boromam ak yonent bi nee moo tax nee bi mu xalaatee cant gi moo tax mu joxe ndigal ci nan ko def sikrullaahi rek koo sant. gën koo sant rek. ci boole gi ñu boole ak sëriñ bi. ci boole jum ñu boole. ak sëriñ bi. ndax koo sant waaye mën nañoo jéem. nee mënuñu koo sant day waaye mën nañoo jéem. biir loolu. nee ci biir loolu. ginnaaw Cheikh Ibrahima moom sëriñ bi. nee na ginnaaw Cheikh Ibrahima moom dafa am xaas ci sëriñ bi. nee na ci biir loolu. mu am mu am xaas ci zikrullahi. mu dellu am xaas nag ci baatub zikrullahi. moo tax. nee loolu moo tax. mu boo xam ne. mu waxoon rek ni nan sàkk ab diir boo xam ni. dañ ci nekk ci zikrullahi. dañuy nekk rek ci zikrullahi. diir boobu ci biir bis boobu bis bis bis biñ koy defee. nee diir boobu ci bis biñ koy defee.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 fi ñu féetanu ci. ñu dellu rek féetanu ci. ñëpp ko bokk ñun ñëpp la war. ndax ñun ñëpp ko bokk te ñun ñëpp la war. waaye ñu delloo ko njabootu soxna ñu ci. waaye ñun ñu delloo ko njabootu Cheikh Rafal gi ñu féetanu ci. ne loolu rek kon. mooy mooy xew-xew bi. moo doon xew-xew bii. loolu lépp itam nag. ne loolu lépp itam. jéggalu bu baax ñi ma ko bokkal. nee na mi ngi dellu baax ñi ko bokkal. te xam leen di def ci sama kanam. te xam ne leen di def ci kanamam. topp ci ñoom. moo tax. nee na moo mu bëgg na ñu xam ne xam ne. moo tax mu bëgg rek ñu xam ne. lu yees nekku fi. ñu ma fi jiitu. ñi ko fi jiitu. ñoom ay kilifa lañu. ñoom ay kilifa lañu. na moom mii nag. ab dong rek la. nag. nee moo tax am na ci yooyu nag. ab dongo koy man. ab dongo moo koy man. nee loolu moo tax nag. kon maa ngi koy jégalu ñi ko bokkal.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 bokki njabootug Cheikh Ibra Fall gi nga xam ni ñoom la ko doon liggéey loo. seeni kilifa ak ñi ko ak ak ñi ñi yilif ko doon leen ko def loo ñu fete kilifa gi ak ñi mu yilif ak ñoom it ñan yilif ñu maase doon leen ko def loo. sant sant sant gu rëy a rëy ñu ngi leen sant sant gu rëy a rëy. nee na mi leen di sant nag cant gu rëy gu rëy rëy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 taalibe yi. ak mboolem taalibe yi. ñu ngi leen di seereel loolu. nee ñu ngi leen di seereel loolu. fas yéene gën a fedd sama laxasaay rek. di fas yéene gën a fedd li ak laxasaayam. ànd koog dongo yi. ànd koog dongo yëpp. sama kem kattan. nee fas ci def kem kattanam. ñi ñii ñii nga xam ne nag samay nee ñii nga xam ne nag ay sangam lañu. ginnaaw boo leen santee cant gu ginnaaw bu leen santee cant gu nee mi ngi di ñaanal ci baaxu Serigne Touba ak dara jam ak ngëneelam yalla sammu len sammu len bopam yalla sammu len sammu len bopam boole nu sàmm ñun njabootu Serigne Touba gépp nag. boole nak delu sammu ñu njabootu Serigne Touba gep talibi yek ñep yeeg ngi ñaan bu baax a baax. nee mi ngi ñaan bu baax a baax. sàmm leen sàmm leen. aar leen aar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 sedd na bu baax. xolam sedd na bu baax. mënu leen sant yéen nee na mënu leen a sant day yéen itam. nii nu ko bokkee. xame ngeen ko ni. nee na xame ngeen ko ni. jëfe ngeen ko ni. jëfe ko ni. ñëw ngeen nu ànde ni. ñëw ngeen kat ànd koog moom. kon jërëjëf jëf kon jërëjëf jëf. nee loolu rek moo doon ay kàddoom. ñëpp mën nañu dellu nag ca liggéey liggéey yi ca nee na kon nag ñun ñëpp mën na noo maase dellu ca liggéey yi des. déglu ndigal rek. toog fa di déglu ndigal rek. ndax ndax man waxtu ne maa ngi xalaat. ndax nee na moom waxtu wu ne mi ngi xalaat. ci nu nu mën a gën a mën a liggéeyal sëriñ bi. nu nu def rek ba gën a mën a liggéeyal sëriñ bi. gën koo mën a sant. gën koo mën a sant. damay wax ne lu ci ak ci sama xel. day wax ni moom lu aju ci xelam. lu ci agsi ci sama xel. lu agsi ci am xelam. xam naa ne tawféexi sëriñ rek xam naa ne tawféexi sëriñ bi rek la. moo may gàttandu rek. moo koy gàttandu rek. waaye man xamuma waaye moom day mel na ni ku xamul dara. jéemu ma xam dara it sama bopp. jéemu la xam dara it ci boppam. xanaa nu mu mën a liggéey sëriñ bi rek. xanaa nu mën a liggéeyal sëriñ bi rek. yéene mbokk yi lool. te yéene ko bokkam yi lool. yéene ko bokki taalibe yëpp. yéene ko it bokki taalibe yëpp. kon nee jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. amiin Mbàkke Balla